mbokki taalibe kon ba tey ñu ngi génn fii ci Touba Argentine ci journée xasida bi kon bu ko defee rek ginnaaw bi jànkat xasida yi wéyee ginnaaw Serigne Touba moom fu mu nekk rek Serigne Fall da koy jëmmal kon bu ngeen ma toppee rek moo leen Baye Fall yi kon mel na ni jëwriñ Baye Fall yaa ngi nii kon mbokk mbokk Baye Fall dañoo bëggoon a xam maanaam zikas ah, nag ngeen ko yëgee tey yi maanaam ci mbiru mi mënul ñàkk mënul ñàkk ndigal jëfee rek Fall caabi la bismillahi rahmaani rahim ah xanaa bis bi tamit xanaa di ko rafetlu rek ndax kenn xam na bis bu mel nii yombul di bisab Serigne Touba di bisab surne xasida dañu di ko defee fii ci Touba Argentine di ñaan yàlla na ci daje ngërëmal Serigne Touba di ñaan mboolem ko xam ne teew fi rek yàlla suñu borom defal tawféex ci barkeb Serigne Touba ndax ñëpp moom kontaan nañ ndax kenn koo xam ne Serigne Touba xam na ne moom suñu borom naxu ko ndax bés ne yombul kon nag li ñu def do xanaa di kontaan lool di siyaare ñëpp boolem teewal dal na bu baax a baax di ñaan nag yàlla na fi ndimbalu Serigne di ñaanal nag suñu mbokk jul yi nga xam dañ fee faatu suñu borom tam bañ fee ci moom tamit liggéey bi kon gis nga Seera Fall jamono jëne mooy jëmal maanaam mbirum Serigne Touba ndax garab moom jamono jëne moom ren ba mooy bànqaas ba kon mu mel ni tey ji yëkkati nañ fi si karulaa lu takku kon ñu bëggoon a xam tey maanaam nan ngeen ko daal en salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barkatoo bisimilah bisimilah ina wani yàlla jërëjëf di Serigne Touba jaaraama suñu maam Seex Faal Lamp ñi ngi doolee sant bu baax di doolee gërëm ku tedd ki di doolee gërëm suñu maam Seex Faal Lamp waaw moom bisub bi moom nii rek la mën a demee bisub Serigne moom rawatina bisub xasida yi nga xam ne kenn du Serigne Touba waaw kenn du moom ndax malakat yi dunyaa wa uxraa wax moom tëj na waaw lépp looy wër ci àdduna rek maam maam ku maam jëmmi jëmmi Seydina Muhammad jëmmi suñu borom teg na ko ci loxo ku tedd ki xaadimu rasulillahi waaw waaye nag kenn suñu maam Seeraa Fall waaw moom mi nga xamante ni moo xam Sëriñ Tuubaa waaw moo xam Sëriñ Tuubaa moom mi nga xamante ni bi mu ñëw ko Sëriñ Tuubaa gi fekk na fi loo xamante ni maanaam ñu mokkal Alxuraan ay boroomi xam-xam ay kaddu

moom day moom moom moom daa tëj rek ndax boo xoolee maam teew gi ñu teew fii ci bërëb bi maanaam ci anam la yu ko soob ci moom si misiriñ bi ndax bu ko neexoon ñu dugg si fii dañuy doxee neneen wala ñu topp nasaraan di demee neneen waaye xol boo ci xar ci tuut tànk yi nu mu toll bëgg Sëriñ Tuubaa nga ciy fekk muy feeñ ci biir biir lool nag waaw nga xamante ni maam kenn du Sëriñ Tuubaa ndaw lan yoo xamante ni maam suñu lépp suñu jaayante suñu biir suñu biti lépp liggéey Sëriñ Tuubaa sivre la waaw waaye Serigne Touba Sivre moom. ñoom ñaar day ñaari jëmm benn bàcc si Raval Poye Val. walaay si Serigne Touba rek moo fi nekk waaw nañ sax nañ nekk ba faaw abadan daay man bàcc borom Touba jaay ngeen jëfati bëggat na loolu faal jaajëf ak sa waaw dal na kay bàcc borom Touba wa kaana xaqan xale naa bàcc si Touba amiin yaa rabbi laa laa faal yaa ka baax laa ilaaha illallah. ndeysaan doxaale leen doxaale leen doxaale leen mooy waxaale. laa ilaaha illallah. jëfati maam Cheikh Ibrahima Fall auzu billahi bil imaani wa bismillahi bil islaami wa jërëjëfe Serigne Touba xaadim rasul bil ixsaani wa ngàcce ngalama Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasul gannaaw ba ñu te yàlla sunu borom julli ci yonantam bu tedd bi di santaat Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasul rawatina sunu yaakaar tey ëllëg Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mi nu yaakaar babul laahi babul janna ibnu Seydina Ousmane moom euh, maam Thierno a Fati ginnaaw bi ñu teewee fii tey jii teewaloon ko ay ati at tey jii muy huitième édition kon dañuy sant yàlla yàlla na ko fekkewaat ay déwéni déwén fii nga xamante ni ñu ngi fi nekk nag di liggéeyal Serigne Touba daanaka liggéey bu nangu la rek ndax Serigne Saliou ñaan nga mu ñaanoon ci Argentine rek daanaka moo nekk nii tey te ay ndaw ngi fi ñoo xamante ni daanaka seeni at soo ko xaymaa doo ci génn ay juróom fukki at wala ñeent fukki at. maximum ñëpp ay tout tànk lan kon maanaam liggéey Serigne Touba bi naan Bamba daj na fépp daj kon mooy lii lii moo wane ni Bamba daj na Bamba partout Bamba merci Bamba everywhere jërëjëf Serigne Touba. Bamba point macha allah kon mel na ni mbokk taalibe gis ngeen ko yéen a ko gisa noonu mel na ni tey ji Serigne Touba maanaam defal na ko tàggatal na ko mboolem réew àdduna yëpp kon bu gerte da ngeen tegandi seen baaram rek ñu dem digtal leen